wa sayyidil kawnayni baasitan naxiim salli bi tasliimin alaa ayni naxiim wa sayyidil kawnayni baasitan naxiim wa aali wa saabi wa animi bilaadan yaa xayra mubqin munimi salli wa sallim yaa muniilal birri على الذي سميت عين الغريج وآلي وصحبي وبالبرور جد لي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم يا إلهي على نبي الله صل إليه والآل وصحبي بلا تناهي يا من حماني عن المناهي yaa man lawul amru ka mislil xalqi salli alal muxtaari saadil xalqi وسلما عليه في الآل معاك سحابه يا من دعائي سمعك صل بتسليم على إذ العرب ورافع رتب كاشف الكرب وآلي وصحبه والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي صل بتسليم على ذي الفرج بدر تمام وكريم المحرج وآله مع صحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم أملي salli wa sallim kulla xiin ala nabiyyika imaami saalihiin yaa rabbanaa salli wa sallim fii abadik ala xaliilika siraaji man abadik yaa rabbanaa salli wa sallim sarmadan ala llazii sammaytahu muhammadan yaa rabbanaa salli wa sallim sarmadan على الذي سميته محمدا يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وأبله جملة ما تحتار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالي أم بجاهه ذنوبي وأبل من يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب وأبل من حفظه أو حصلا بأي وجه بنبي أملا يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وأبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير قديم يا ربنا قل سلامك لمن وأبتلي بجاي خير أمن يا ربنا مد سلامك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا yaa rabbana bashir qalilaka alxabib bi qimati wa kull saalixin labib amina ya rabbi bi xaqi wajhika ya waxidan laysa yura mushibuka ya man li wajhika alkarimi dha nidam katabtu quddu li al ayaadiya al idam بلا أذى ولا جوى ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت أبلي عصمة من الإتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واحب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عبد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئيه وألم به النفور واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمد وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل توجه العين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأ خير مراد واسلكه يا يا رب الورى خير مراد واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وأبل من يقرأه ما يغبط به سواه يا جميلا ينصت يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه والترفام إليك سعي برضا يرتفعام yaa rabbana salli wa sallim sarmada ala karimin kullu qad humida sayyidina muhammadin qitami man arsaltahum kal anbiya ya dha zaman wa alihi wa sahbihi wal taj'ali dhan nazma qariqan bi yanja'ili wa alihi wa sahbihi wal taj'ali dhan nazma qariqan bi yanja'ili yaa man amarta zawil imaani kulla umo bi ay yusallu alal muxtaari fi rusuli yaa man amarta zawil imaani kulla umo bi ay yusallu alal muxtaari fir rusuli min qbalan na salaatan qad lafaztu biha nazman liwajhika ya man qad maha kasali faqbal nidaami wasan yi kulla wa karaman ولا ترود ليا دلي من العمال فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير حنا إلي بأمالي أشكر بفضلي كسن وارضيا نبيه يا من به سرت ذا هدي ولم أميلي أنت الكريم الذي أبغي تكرما يا خير آد أدامني أفضل سبوني كلي بجاه رسولillah مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبال وارفع نظامي ذا جودا وتكريما ولا ترودنه يا مذئب الإلال دم النظام إلى سعي السحاب غدا ولا ترودنه يا مذئب القلال سواك لم أرج في سر وفي علان بأ بالحق وأتيك حق فقد رجاء ñu ñaanal ko yàgg ànd ko wér te ñaan yàlla ko yàlla def seen borom te lépp baax na ko te lépp baax na war na baax si moom kon li nga xam ne dina ci waa ñu ñaan si tool bi ñu teew yaakaar na ñoom ak kaw bu teewee mën na ngeen waaye sax ba léegi lay jëm ñëw bi ñu bi ak bi ak ci jiwaay ci ñëpp ka bay iti ñëw dégg kon nag iti yi ñu bàyyi ñëw dégg yàlla yàlla wax bi sant na ñëpp gërëm na ñëpp sant na borom yàlla mii nga xëy itam mooy borom kër gi te muy ak bay saa bu ñëwee bu leen bëggee jàpp cërëb kilifa itam ñu jàppee ko cërëb sëriñ bi loolu comme boo ko bëggee jàpp bàyyi mu jàppale sëriñ bi suñu yaram si biir si ñetti di mën leen sax pour ñu bu boolee suñu ba taxawaay bi jërë ñaan. toog góor gi Mbaye Faye kon sëñ Mbaye maa ngi ginnaaw bi ma la santé di la nuyu di aussi ci dérangement bi maa ngi leen laa rek daare bi nga xam ne mooy daare Sopp Murid Jonn ñu taxawal bés bi tey ma la ne nan ngay gisee ànd xale yi loolu de lu loolu de lu am lu am solo la ndax ndax gudd uh, kii uh, muri doom kooku defaral ko ci goxen ji ci ci wàllu sëñ Tuuba da ca am da ca am da ca am positif ndax jàngkat la te li mu nekk gëm na ko moo tax ba ñuy dem di jéem a ci moom ci lu baax jéem a topp ndigal Tuuba ak ak ak ak ndigal ay waajuram ndax loolu mooy adduna ndax loo waaye liggéey te te te jéem ci ci uh, ndigal sëñ Tuuba fekk li nga li nga war a liggéey am na am na lu manqué ndax boo toppee ndigal sëñ Tuuba da a góorgóorlu topp ndigal jaamu yàlla jéem a a jéem a li sëñ jé a liggéeyal yàlla ak ak sa bopp ndax ni fekk liggéeyal sa bopp fii boo liggéey boo liggéey fekk dara kon nag moo tax gone yi itam di góorgóorlu di topp ndigal di jaamu yàlla di jàng di jàngalee te loolu moo am solo ci adduna loolu loolu la sëñ bi santaane bu la ko def ñu nga ko te loolu gënul ci loolu ma tënk maa di wax sëñ Tuubaa lu ma yaakaar ak sëñ bi dina ñu nga xam ne ma tegaat ci sëñ Moutala mi nga xam ne ak sëñ Yebra sëñ Youssou Diop mu mag ndax ci ndigal loolu la la laa ci sëñ Sam ndax sëñ Sam moom mooy sama sëñ ci moom la laa ndax lépp teg na ci ci Pambal bi ma nekk seen jur ah, ba tax na itam kooku itam moom warkal mën mu koo fay ndax lu mu ñaan rek tudd na ci waa Pambal ba fu mu toll waa Pambal lay noyyee waa Pambal la la gën amee amee yaakaar ci ci teel bi nekk bi muy warkal bu ñu ñu nga sagal bu baax a baax te wax dëgg ci yàlla teewul ñu woon sa dara fu ma nekk ci réew rek ñu jox fu ma moo tax maa sant yàlla yéen ko sëñ Tuubaa bi ma yaakaar ñu doon koy taxaw ci kër sa jàmm boobu daanaka kenn mënu ko nattable ndax da caa da ñaar tànk la fay ba moo tax wax dëgg ci yàlla góorgóorlu na ca bu baax a baax mooy itam maa ngi sant di ko gërëm bu baax a baax waaw. li nga xam ne ñu gën a ñu gën a góorgóorlu li ma leen di ñaan gën a góorgóorlu rek ndax ñu dal teel ba ay ndigal de buy dégg ndigal topp ndigal rek daana moo ngi moo ngi ci ngi ci tànk jaamu yàlla ndax lool loolu loolu la ñu fi yàlla bàyyi topp ndigal te jéem a jéem a góorgóorlu rek eh, ci ci lu baax jéem a liggéey ndax nit yëpp nekk ci àdduna te nangu te góorgóorlu liggéey foog da nga defe leen te leen loolu yàlla santaani ko yonte bi santaani sëñ Tuubaa santaani ko waaw gën gën ci nga xam ne moom moom laa ko da ko waxee moom moo tax ñëpp ñu leen loolu man dara laa ci waxal lu lu baax jëm ci yàlla yonte bi sëñ Tuubaa yow ci dara waxal ma ci dara ndax góorgóorlu am mu am solo kon xale yi bu am solo la. ndax maa ngi leen di gudd fan ak barke ak wér waaw nga di ñaanal yàlla wax sëñ Tuuba ak gudd fan ak wér ñu gën yokk ñu yokk ñu gën yokk ba yëg ko am ci yoonu sëñ Tuuba yi ndax loolu moom moom mooy addina ndax addina fi da fa jëm a liggéey ba mel ne dootoo fa jox loolu moo am solo ci addina ndax loolu boo ko si jëmee rek ah wax dëgg si yaa ngi yaa ngi si ndigal suñu borom ndigal loolu na am na solo lool barkal maa ngi sant ñëpp di gërëm ah wax dëgg yàlla lu xeeb bu de mënuma moom daal dëgg-dëgg tubaarkàlla yàlla yàlla gën leen doolu jàmm ak sëñ waaye ndax daayira bi day yokk. daayira bi day yokk. lu yokk lu baax nag ànd naa si soo ma gisee ci biir maa nga soo ma gisee ci biir maa ndax man amul ko dul borom ci boo déggee daayira borom taa ko waral te mënu ko lu borom moom la ñu yaakaar fii moom la ñu yaakaar bu ëllëgee ñu ñaan sax suñu mën taxaa yàlla na fi yàgg ànd ak wér suñu mën taxaa yàlla na fi yàgg ànd ak wér bu baax a baax ak ñu àndal ci liggéey bii ñu liggéey sunu borom yaa ngi dégg liggéey bii ñu liggéey sunu borom noo ngi ci sant mu mënu tam ndax loolu dañ moo koy jëmee kanam te nit bu yokk daa wàññi ko noonu nag ki ñuy yokk kenn la ki ñuy wàññi kenn la noonu kooku nag xamul wàññi yokk la xam di borom taal yàlla borom taal bi yokk jëmee lislaam ca kanam ba lépp loo xam ne suñ mun taxaa diglee na ko ku ñëw nan ca fekk lu mu teree dafa dem bu mën a def bu mën dégg alhamdulilah leneen loolu laa jot ñu déglu. Euh, waa dëkk bi sant naa leen gërëm naa leen ndax dañu maa jox cër bu am ji tuut naa ca lott naa ca mooy loolu ñuy wax limaan lañu ma def tuut naa ci lott naa ci waaye nag borom daal daal jiital ba ñu mën a yaay limaan bu dëkk bi dama daal dafa borom daal teg ko ci kanam bu ñu defee ne sa kanam nekkuma ko borom daal moo jiite. dëkk bi sant naa leen su ma soxlaa ñu ñëw taxaw nee ma lépp lu ma soxla ñuy ñëw taxaw nee ma ba loolu antu kon nag naa leen ci gërëm naa leen ci ñun ñii gisuma kenn ku jëm fenn fu dul wenn yoon la ndax lislaam du ñaar ba nga nee lislaam murita nga ca bàyyi laaya nga ca xaadira nga ca ñesee na nga ca jaan na nga ca bépp koo xam ne ki yaa ngi julli ngir yàlla dugg nga ci biir lislaam dëkk bi nag dañoo def benn bopp man yow may seen waaye matuma ko waaye dañ ma caaj yi géej bañ ma joxe cër bi jox naa ko borom toi li ma la xam léegi rek moom bu nekkee ca kanam nekkuma ko borom toi fa nekk kon dëkk di sant naa ni gërëm naa ni muy góor ak jigéen mag ak ndaw kaamil bi sant naa leen dégg nga fi ma leen la sant yi fi ñoom sëñ Cheikh nag muy suñu ay suñu liggéey bañ te ñoom laa yaakaar sëñ Cheikh nii muy ku yàlla dimbali ba nga dee teg suñu liggéey bañ man laa sant borom taal ndax ba dee ñaari fan yi toog na maam moom la mu wax dégg naa ko la muy jëf lépp joo xam ne ji du ma ko joxe sama rakk ak du may ko soobee yàlla ak yent bi danaa def si moom yàlla dogal saa bàyyi ñu toog fi ñaari fan ñett gisuñ am mun na ana Abdou ma ne ko Abdou yóbbu naa ko Tuuba ma boo bëggee doom jooy joxe damay jur doom jox man wax jël bravo mën ma jëli ko ma ko naa ko jëli loolu dema dema dema dem ba mu xam ni du ma ko jëli mu jógee fii dem ba njaareem ne ba may yeggee njaareem la saam xel nekkatul ci jël ëpp bésub àjjuma ba mu yeggee fekk ci ñeen ñu may daal xudoos su ñeen ñu may bàyyi ba nga xamante waxtaan bi jub si mu jox ko grand bu mën ko nan lu ne bi ma demee dégg naa kàddu sëriñ kon waaye jotuma koo ci bët waaye ne bi ma ñëwee waxatuma woon jën ëpp ñu toog bay bi suñ bi ne ko jox naa la ëpp waaye ruub gaa ngi ma téye mu ne ko dinaa def ci moom ba def di leen sal Abdou moo jur mu mu mu jàngal kullu Pamba ak ba muy muy muy jàngal ba jàng yi dem na fi yeen kon la mu noonu def si moom ba def bi leesal moo noonu ba yaa ngi dégg kon nag leen na loolaa jot ci nu mën koo wax waaw ah. looy ñaanal mooy xanaa gudd fan gonde wér ak wér yi liggum somm na borom toir gudd fan gonde wér ak wér yi liggum somm na borom toir yàlla defal ko ko defal ko ñu may àndal ak ñun ñii yow mi nga xamante ni yàlla dogal na itam saa yow la fi teg ngay jël lu bari ci noonu di def ci lu bari ci noonu di génnee lu bari ci noonu yàlla la fi yàlla bàyyi yàlla la fi yàlla bàyyi ci dara ji xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sëriñ bi yàlla dogal na mu xam moo gane ba jaar fii di bii nga xamante sama néeg bu ma ko tuddee njaareem ngir njaareemu borom Tuubaa ngir sopp borom Tuubaa ak bëgg borom Tuubaa kon mu ngi noonu. loolu euh, ak waa kër gi yan kàddu cant nga jëmale ci ñoom. xanaa ma ci borom Tuubaa. asalaamaaleykum. waa njaboot gi laa wax xatal ñu ma fenn baat bi ñu ne ñu bu manqué ci man la waaye du ci ñoom maa ngi ñaan Serigne Touba bàyyi na fi bàyyi na wax nii dañuy namm ci borom taa ku ñëw nan fekk ci borom taa ku dem nanu bàyyi ci borom taa maa ngi leen koy ñaanal itam sant naa leen gërëm naa leen yàlla yàlla def ci ñun barkeek barkeek baabu borom taa dalee ci suñ mën tax a mbàkk mooy leen mbir mu ne boo xamee mu ngi ci barab te suñ am di faal suma sanga bu tedd bi moo ne bàyyi leen lii mu ngeen seete ko képp koo xam ne kii yaa ngi duniyaa léegi fa nga jàpp bu ma tee jàpp ñëpp wóoru ko bu ko booleeg leen léegi xale yi léeg-léeg nga dégg nangam ak nangam nangam ak nangam te yooyu amul solo ana lan moo am solo sëñ bi Touba ngi fi Touba doy na kaw doy na suuf ba mu saa noonu na du ma fi bàyyi koo mukk mais ku fi nekk mën a kon borom ta ñi ñu nan ci jàpp moom laa leen di digal moo nee ci jàkk de bu koor ñëwee suñu jullee ba noppi may toog di leen waar waaye li ma leen di waaree mooy nan jàpp borom ta ak maam Cheikh man jàpp boobu ba am maam Cheikh Fall li ma waxoon dama ciy génn suñ Muntaxa yal na fi yàgg ak wér suñ Cheikh Jëmba Fall yal na fi yàgg ak wér sama njaboot gërëm naa leen gërëm naa waa dëkk bi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bàyyiwuma kenn ak loolu ngeen lu rafet wax lu rafet na yàlla rek saa borom dimbali yegg ah, yow mi nga xam yaa formé mbir mi itam. barika def nañu lu rafet. alhamdulilah sant gërëm rek. barika lan nga leen di dénk ci ñu àndee ko ci dama ji jamono bi ni mu tëradee. yan kàddu nga dénk waa daayira bi maanaam ñu jàppalante ko. waa daayira bi. waaw waa daayira bi rek xanaa di ñaan yàlla yàlla doole loo jàppale rek. te it ñu góorgóorlu bu baax. ndax addina. jaamu yàlla rek ci am solo jaamu yàlla rek ci am solo sunu jaamoo loolu la ñu yàlla dénk sunu jaamuwul loolu la ñu yàlla dénk kon yàlla na yàlla doole limal ba nga sax ci ndigalal yàlla ak yonent bi baax borom bari nañu bala day sawar naa cee waxtaan lool da wax dëgg yàlla lépp ci bàmb ji la wax ji yàqu borom Tuubaa lu baax la digle lu baax la bëgg te moom la digle waaye def lu noonu ba noppi nga naan lépp ci Bàmba ji la dee déet du dëgg tey du dëgg boo liggéey soo ko waxee rek tooñ nga borom Tuubaa ndax lépp ci Bàmba ji la am na loolu bokku ci am na lool bokku ci lu dul dëgg bu leen ko ci boole lu rafet bu leen ko ci boole sëriñ bi ñu bëgg daal guddi bëccëg nam doon na taal rek Cheikh Fall te sax ci biir loolu daal mooy yow li mag ñu def lu moom daal boo boo yaakaaree borom Tuubaa ak maam Cheikh Fall li ñu digle muy guddi bu baax te njaboot bi nga njaboot bi nga xam ne yaa su ëllëgee soo leen tegul ci yoonu yàlla su ëllëgee yàlla dina la laaj noo yore woon njaboot bi ba tax na loolu lañ ko bàyyi xel man bàyyi xel bu baax ci bu ëllëgee yàlla dina la laaj man noo yore woon njaboot bi daayira bi nag na yàlla tax waaye bu yàlla taxul dootu lu dootu lu doy na doy na yàlla tax ci la ma xam de man yuusu ci la ma xam doy ci sëñ Cheikh Mbacke laa ko jëkk jëkk fenn Sénégal jëpp sax dëgg euh, wilaaya sëñ Mbacke soxna kon ñooñee la ñu bëgg ci lu baax ba tuddee euh, ba tuddee daayira bi daayira kon nan sax ca loolu ah liñ mbàkki soxna loolu alors yàlla na ko yàlla jéggal moom ku baax la bu baax la yàlla na ko yàlla jéggal. amiin boobu lan moo taxoon tam lay. waaw xanaa ànd doon benn. Mm-hmm. ndax sëriñ bi wax na ma ko màggal. Mm-hmm. sëñ Cheikh Mbacke. Mm-hmm. yal na ko yàlla dolli àjjana yu foofu. amiin bu ba noppi. njëkk a dégg. leen doon lu ngeen jéem mën ko. ko jàmm yàlla. bëgg na ko sax ci ndigalal borom Tuubaa. loolu daayira doon benn di mbooloo su ngeen ko defee wéy ci ndigalal sëriñ bi te bu boobaa lu ngeen jëm di ngeen ko mën jërëjëf waaye jiw de kenn mënu koo fay yàlla doo ma mën a fay léeg-léeg sax ma di ko wax ko nii mu leen góorgóorlu leen ci bay waaye jiw kenn mënu koo fay ba tax na lu ngeen góor ci ci wàllu way jur na ngeen ko xeet te gën di tey julli juróom fu ngeen julli juróom ñaanal leen sunuy day ñaanal bokki teel bi yu ñu jiitu bar sax kat sunu ñaan dong la ñu bëgg alaaxira bëgguñu ñaar bëgguñu ñaar lenn dong la ñu am na lu ñu bëgg njëgalal kon yàlla na yàlla te ci te góorgóorlu bu baax góorgóorlu bu baax. وسيرني سالكا وناسكا ومسكني جعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا ونازكا أدعوك أن تجلو دارتها والحلم والدين ودار الارتخاء أدعوك أن تجعل له دارتها والحلم والدين ودار الارتخاء وجنة لسالك مريد وجنة خناتك مريد وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل عاد مسلمين ومدفعا عن كل عاد مجرمين Wow! حجة لمن بدف ارتدى وحجة مخالف خدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومعربا ndaw yoo xam ne dañoo ànd si murit liggéey si Tuubaa soppee xarit gi am na soppee xarit gi am ci am na sëñ murit lañu am mooy seen jàngat boo koy ñaan nag mu ne ba yoree kat kat ànd ak ay awkatam ñu jàng ji fu ne ñu ngi ñëpp fépp lañ dëkk fu ne fu ne dëkk jàng ji fu ne ki may seen naat yi boo yor waat liggéey bi sëñ Mbay Fay mooy jëriñ mu dëkk jëriñ kuréel gi demee fi ba Italie ba Brésil ñëpp a ngi ci liggéey bi ñëpp ko taxawee mi ngi ñi di ay mag nag ñu mën ñu naan bu baax a baax nag te ñi xam ne ñëpp ñëpp ci biir ngeen ñaanal ñu rek ñoo ne suñu mënul liggéey si màgget. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rabbi istahni sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bismillahi rahmani rahim alhamdulilah rabbil alamin auzu billahi mina sheytaani rajim mm, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk julli man la soxna Koura bokk ci kuréelu xidmatu xadim ànd ak soog sëriñ murit jonn liyee sëñ Touba waaw ñun ñooy ànd ñun soxna yi duus xasida soxna Koura Ngom soxna mbaak soxna nogo yi bëgg fàllu waa di wax sama yëg-yëg nga xamante ne am naa ko ci biir kuréel gi ak daara ji rek mu doon majmuha boo xamante ni wax dëgg yàlla bëri na yi groupe whatsapp ñu yoo xam ne ñu ngi fii te bu ñu xëyee suba ngoon dulul caaxaan la ci la ñuy nekk di waxtaanee waaye groupe bi ne doy na sax nga toog sa kër bañ a dem jàngi ji toujours ci njàngale la nekk njàngale àdduna ak loo xam ne dana jariñ fii sa dunya ak sa àllaaxira mu doon yëgee boo xamante ne am nañ ko si wax dëgg fa yàlla di kontaan ci moom bu baax baax moom moom mi nga xamante ni moo waral lii yëpp di ko ñaanal tawfeex tey si saxar daara ni di ko ñaanal mbokki taalibe yëpp yi nga xamante ni tamit ñu ngi ci biir kuréel gi ñëpp ñu ngi leen koy ñaanal tamit di sant waa kuréel bi te am di am kontaan bu baax baax ak mbégte. ci bis bi di ñaan mu doon loo xam ne chaque année rek day kawe suñu njortu te yàlla jàppal ñu tawféex ak xaas yu bëree bëri bëri boo xam ne chaque année dañ am yéene yoo xam ne dañ ko taxawal ba mat sëkk rien sant yéen ñëpp ñu leen di jaajëfal bu baax baax kuréel gi ku ca mag ba man mi ci xam ne maa ci gën a ndaw maa ngi leen di ziar yëpp di leen jox wàccuwaay yi nga xam ne yéen koy yëgoo la siyama jëwriñ Mbay Fay tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñëpp waa ñooñu dama leen di wax ni loolu du nekk ci daaya doon loo xam nekkul bett ma parce que chaque année rek yow boo ko gëmee def ci pësteef doon loo xam ne bëgg nga ko chaque année da lay yokk mais du la wàññi da ngay gis nit nekk ci benn daara boo xam benn daara boo benn daara buñ ko ci laajee yenn yi sax mu doon loo xam day dis si moom wala mu koy jàmbat mais am na ñoo xam ne ñu ci ay ñett daayra ñetti daara mais chaque jour fi nekk kenn mënul dara mais dangay ngay jéem rek nga participer def sa kéemtalaay kàttan yàlla da lay fekk si jàppale. ma leen di wax rek ñu góorgóorlu bu baax a baax dugg ci daara yi nga xam ne leen leen jariñ waaw ci biir kuréel gi am na ay waxtaan yu ñu fay def macha allah ku mel ni soxna na koy càmm tout le temps du jug ci saa yu duggee rek jariñ la fay joxe yoo xamante ni soxna ak ni muy nekkee ci biir këram. ba ci yow boo amee borom kër ni ngay dundee moom ci biir kër gi ni ngay dundee sa parent yëpp du jug chaque du jug te du ñu fi ñaar ak góor yàlla yi nekk ci biir tamit macha allah ñu ñuy xamal suñu diine bu baax a baax ci biir daara ji. auzu billaahi mina sheytaani rajiim. wa inni u'iiduhaa bika wa zurriyyatahaa mina sheytaani rajiim. rabbi auzu bika min hamazaati shayaatiin wa auzu bika rabbi an yahduruun. saddiq lisaani nawwir janaani jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatulah loo ci bu baax a baax di leen ziar waaye di leen màggal waaye di leen war seen wàccuwaay bu baax baax di leen ñaanal jàmm bu baax te di ko sàkk si yéen di am mbégte bu baax a baax ak contentement rek ci teewe bi ñu teewe bés ci santat yàlla bu baax a baax di ñaanal yàlla nañ ko teewee ay ati at Cheikhul Khadim waaw comme ko waxee bés bi moom dafa nekk loo xamante ni moom bu ñëwee rek ñépp si war a jàpp si ñëpp jàpp nañ si wax dëgg fi jigéen soxna yi ñu si waañ bi ak Baye Fall yi ñoom ñëpp tey suba ba léegi ñépp a ngi góorgóorlu si liggéey bi di ñaanal borom bés bi Serigne Mouride Dior ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ziar ak jëwriñ ñi topp si ginnaawam ñëpp. ñoom Seydina Aliou ñoom jëriñ maam Thierno ñu leen di jaar bu baax a baax ak ñu topp seen ginnaaw ñoom soxna yi ñoom soxna Nogoy Thiam ñoom ñëpp leen di jaar baax ñoom soxna Kurangom di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm. mbokki dëkk bi man la Baye Ibrahima John Touba Kiwi. soppay murit John ñu ngeen di siyaare bu baax di am mbégte bu baax ci yéen di siyaare bu baax a baax a baax a baax bis bi am nañ ci mbégte bu baax macha allah yaa nañ ko yàgg a fekke yaa nañ ko yàgg di mën ba ci sëñ Tuubaa man la Baye Ibrahima John maa topp ci jëwriñu ñu wi di Serigne Youssou Baye Fall Serigne Youssou Baye Fall wax dëgg si yàlla liggéey bi tegu na ci yoon tegu na ci yoon ba fi ñuy toll nii. kon ñu ngi ko ciy sant di ci gërëm bu baax a baax di sant jëruñu daara ji sëriñ Mbay Fay ñu ngi koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér barke sëñ Tuubaa di siyaare Seydina Aliou ki yor wàllu programme bi ñu koy siyaare bu baax a baax a baax am mbégte moom bu baax a baax di ko ñaanal sutura su ànd ak teranga barke xasaayit bi di siyaare borom daara ji sëriñ Mourou Dione di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér barke sëñ bu baax xasaay bi ba fépp fu ñuy senk jàng sentu jàngkat mën fa àgg barke sëñ bu baax am nañ mbégte bu baax ci soxna yi soxna na koy càmm mu sëriñ Fallou ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di siyaare soxna Ruba Jonn di am mbégte bu baax ci bis bi daal maanaam kawe na njortu daal ndax liggéey bi tegu na ci yoon tegu na ci xam-xam kon ñu ngi ciy ñaan ngërëmal sëñ Tuubaa ki nga xamante ni moo waral bis bi mooy Baye Abdou yàlla na yàlla yeesal yërmandi ci kawam ak ñi mu fa fekk ak ñi ko fa fekk di siyaare jëwriñ maam Thierno ki yor wàllu yóbbul bi di gërëm ilimaan bi di gërëm jigéenu jëkk bi ndax liggéey bi jàpp nañ ci fukki loxo ak juróom maanaam lépp ñoon ñii la waroon waaye ñoom dañ cee téye fukki loxo ak juróom kon ñu ngi leen di siyaare di am mbégte bu baax ci ñoom di siyaare waa dëkk bi di siyaare ilimaan bi di siyaare borom. ñi nga bokkal waaj. Eh, euh, yan kàddu cant nga jëmale ci maanaam ñi nga xamante ne maa ngi ñoom ñoo bokk waaj bi muy góor muy jigéen ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñëpp jàppal nañ ci fukki loxo juróom jigéen ñi ñoom soxna Ndeye Coumba Thiaw ñoom soxna Coumba Dione ñoom soxna Nogoy Thiam ñëpp daal jàppal nañ ci bis bu baax a baax bàyyi seen njiit yëpp. ñu ñëw ngir jëmmi bis bi kon ki nga xamante ni mooy borom bis bi mooy baab bu mi nga xamante ni moom la ñaanal yal na yàlla yeesal yërmande ci kaw ak ñi fa fa fekk ak ñi fa fa fekk barki sëñ bu baax am nañ ci mbégte bu baax wax dëgg si yàlla ndax ñoom daal jiite nit dafa métti te noonu dañoo mëniwut wax ba tax na xanaa ñu wàcce kàddu yi foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di saari ñëpp di am mbégte bu baax ci ñoom wax dëgg si yàlla jërëjëf a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim wa inni u'iizuka wa zurriyyataha mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa bismillahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdallah wa alihi wa sahbihi wa man waalaa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh yéen waa daara Xidmatul Xadim fii Touba Babal soppe Serigne Mouride doon ginnaaw bu ñu sant yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nga leen si ziar bu baax a baax leen baalo ak leen bal ak di ñaan yàlla suñu borom boo leen ñu baal ah, maa ngi ni tudd maa ngi tudd bu joon ah, maa ngi doon membre ci dayra bi ah, vraiment wax dëgg bi moom suñu borom def na ñoo ngi ci na bu ñu xëyee dañoo jàng alquran ba pare di durus xasida nga xam ne Serigne Touba moom daanaka léppam alquran la léppam xasida la ci dayra bi loolu la doxee fa tabarakallahu lépp rafet na incha allahu rabbi ba tey ñu ngi ci li ma xasida yi incha allahu rabbi ndax murit moom loolu rek mooy mooy mooy sagam ba tax na nag ba tey ñëpp ñu ngi ci bu ko defee ñu ngi woyal liggéey bi incha allahu rabbi ñu ngi koy woyal bu baax a baax naa di ñaan yàlla suñu rek ah, mu may ñu ñu teewee ko ay at yu bare bare incha allahu rabbi di ñaanal Euh, sëñ Modou Dione mi nga xam ne si mooy jëwriñu bés bi yàlla suñu borom defal ko tawfeex defal ko fan bu gudd ak wér ba Seydina Muhammadan Rasulullah sallallahu taala alayhi wa daal mbokk euh, taalibe yëpp a ngi fi ndeysaan euh, mu nekk lu rafet lu am solo tabarakallahu ñaan yàlla suñu borom rek mu mañ ñu teewee ay waañ bi di liggéey fa tabarakallahu mbokk taalibe yi tamit ñu ngi ci li mu xasi day ba tey waaye alquran bi moom jàng nañ ko ci suba incha allahu rabbi mooy lu ama am solo fa tabaarakallaahu kon lii laa amoon li may wax maa ngi jégalu bu baax di leen baalu ak di leen nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu xam nga man moom ah fa tabaarakallaahu xam nga damaa ñëw rek Seydina Aliou jox jox liggéey bi ah, wax dëgg sa la ah, ñoom day naka réew ñëw jiite moom ndax ah, ñoom vraiment ñoom dañoo oyof dañoo neex a jiite fa tabaarakallaahu ndax ñi nga xam dañu cee nekk di di liggéey mooy lu am am solo xanaa kay tabaarakallaahu di leen ñaanal yàlla suñu borom rek a ah, defal leen tawfeex rek mooy naka la ñuy jiitu moom wax dëgg yàlla ah, loolu lu am am solo la tabaarakallaahu waaw euh, yéen moom yomb na yomb ndax ah, xam nga dañoo nekk ci boy yu fasanti ko ba des fois dañuy woote am ñu ñëw am ñu ñoo xëy ne si duñu jot a ñëw xam nga tey am nga comme wax dëgg sa la soobu liñ fa liñ fa yóbbu mooy tabarakallaahu yëngatu ni di daan suñu doole kon xam nga ne buñ fa nekkee dañuy xaw a xat ba dajee bi du yombee noonu waaye yàlla suñu borom bi nga xam ne si dara taxu a ah, def na ndaje boo xëy ne si dañuy ndaje waaye du ñu gisee mooy dañoo former benn groupe boo xay ne si lépp lu waaye bëgg a sànni ak benn programme boo xay ne si am na ci dayra bi ah, dañ ko ci sànni bu ko defee ñëpp jot ci incha allahu rabbi waaye ndaje nii moom. ak ñu ngi daje waaye daje boobu yombul ndax du ñëpp mën a euh, kii des fois jot bi day xaw a day xaw a seer tuuti waaye groupe whatsapp bi moom wax dëgg sàlla mu ngi dox bu baax information yaa ngi fii yaa ngi ciy jàll mooy la am am solo incha allahu rabbi waaw kay bismillahi rahmaani rahim rabbi yaxfir li waxlul xutadal min lisaan yafaw xawli gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonente bi ñoo ngi sant suñu ñaari waajur baax di sant seexul xaddim mi nga xamante ne mi daanaka lii lépp moom la waaw man nag maa ngi tudd Habib sant Tine dëkk Touba Mbaraglu Colobane waaye tey nag dañ fee ñëwoon ci bisub Serigne Mor Dione bi nga xamante ne daanaka chaque at mi ngi koy def ren nag mooy nekk deuxième édition bi programme niñ ko fas yéenee tëralee ñun ñii nii ñun ñooy maanaam waa lu kafe gi daal ñun ñoo ñun ñoo yor kafe gi ñun ñoo koy gérer léegi xam naa si kanam sax bëgg nañ cee ndax ndaxte gan yi door a ñëw incha allah bu ko defee ñëpp barkeelu ci nag boo gisee ñun si suba ba léegi daal daanaka ñoo fi nekk di seggi kase geeg di kii yooyu noonu léegi nag loolu noonu daal lañ ci kii xam naa ni si kanamee daal incha allahu rabi kase gi dinañ ko tàmbalee partagé ba mbokk taali bu nekk mën cee jot daal incha waaw laaj na laaj bu am solo maanaam kuréel xidmatul xadim bu mooy ñiy liggéeyal seexul xadim léegi bu ko defee ci biir liggéey boobu noonu maanaam dañ fa am kees mhm. dañ fa am kees léegi nag teewul am nañ kees mais kenn ku ci nekk maanaam ku ci bëgg ku ci bëgg a barkeelu rek mën nga joxe loo ci barkeelu ndax de moom liggéeyal Serigne Touba maanaam dafa yaatu kenn ku ci nekk maanaam mën nga joxe loo xamante ne si di ko mën a mën a maanaam mu doon sa participation ci kii bi mais ci wàllu pour wàllum café geeg yooyu noonu waa kuréel Xidmatul Xadim ñoom ñoo koy génne ci seen kees mais teewul tamit képp ku ci bëgg barkeelu rek bu ko defee mën nga joxe sa participation mu dem ci incha allah waaw képp ku ci bëgg hmm, euh, bu fekkee ci wàllum participation moom bu defee mën nga gis jëwriñ addu rek mi nga xamante ne daanaka moom lañ teg ci kanam jëwriñ Aliou mooy suñu jëwriñ moo nekk ko defee képp ku ci nekk am koo xam loo ci wala loo ci participer rek bu mën nga gis ak jëwriñ boo ko joxe incha allahu moom dinañ ko yeggee ba ci rek même bu dul jëwriñ koo ci gis koo xam ne nii bokk na ci kuréel Xidmatul Xadim bi boo ko joxee sa participation ne ko lii ko barkeeloo ci liggéeyal Seexul Xadim bi bu defee boo ko joxee moom après moom dina ko indi fii nii pour ça ñu boole ko daal mu mën a yor liggéey bi incha allah. <laughs> li ki defar kafe gi moom maanaam yàlla def na moom. Uh-huh. soxna yi dañ leen ko baal daal. Uh-huh. waa yi fi daal ay góor yàlla rek a fi nekk. Uh-huh. kafe gi daal dañ leen ne bàyyi leen rek ñu féeree ko daal. incha allah noonu la fa demee. ay góor yàlla rek a fi nekk. ci suba ba léegi nag fi lañ yenn daanaka. waaw. Hmm. Uh, day. ndax day. day ñëw rek dugg ànd ak yéen wala day ñëw jéem a dabee li paase. Ah, waaw mais dëgg loolu tamit am na solo parce que maanaam loo gis daal dafa am yoon. fi ne nii kër gii nii boo fi doon dugg maanaam doo duggee fii nii te miir bi rek daal di dugg wala nga duggee ci côté bi wala noonu noonu mais gannaaw dafa am buntu wax naa la ko sànq jëwriñ àll bi mooy ki nga xamante moom lañ teg si buntu bi léegi nag bu ko defee képp ku ci bëgg a participer rek boo ñëwee gis ko rek après moom incha allahu rabi dana la expliquer népp noo koy defee ba mu ne tàbbi si biir daara bi ak ñoom jëwriñ ñoom jëwriñ àll wala ñoom jëwriñ maxtaa ñoom ñëpp kenn koo ci rek boo ko expliqué rek boo defee moom dina la won yoon bi nga xamante ne bii foofu ngay jaar pour tàbbi ci biir daara ji parce que lii moom maanaam ñëpp ci xaj te bëgg bëgg nañ tamit ñëpp dugg ci insha allahu rabbi parce que xidmatul xadim jëf daal sëñ bi dana la fay insha allahu rabbi jërëjëf waaw jëf wa rahmatullah ay leen di nuyu di la jaajëfal di nuyu Serigne Mbaye Faye Seydina Ali ak Serigne Mouride Dione ak waa kuréel Hikmatul Xadimiya waaw li nga laaj am na solo comme ni ñuy def ba gars yi dajale addiya bi maanaam dañoo am compte Orange Money léegi groupe bi groupe kii bi groupe soppe Mouride Dione bi programme lu ci xew rek lu ci mënta xew rek dañ koy dugal ci soppe yi bu ko defee kenn ku rek yëg ko léegi liñ ci war a participer rek ci compte Orange Money bi dañ koy dugal bu ko defee Seydina Alioune jot ci incha allah. waaw loolu am na solo loolu am na solo bu baax a baax a baax ah, ndax liggéey bi yomb na. ah waa liggéey Serigne Touba moom kenn ku ne xam na ne moom commencé lañu am rek boo ci commencé te dëgg rek sëriñ Touba moo ndax mbirum Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek moom dañuy tàmbale rek mm-hmm. sëñ bee mu tali lépp waaw ku ci bëgg dugg nag waaw ku ñu bëgg dugg boo gisee jëwriñ sëñ Mbay wala si naxalin bu ko defee rek ñu mën la ci ab tàbbal daal ndax xidmatul xadim daal lañu wax liggéey sëriñ Tuubaa kon nag ñëpp ci lañ ku bëgg a liggéey sëñ bi ko moom duñ leen suñuy bunt ko ne mën ngaa ñëw waaw jërëjëf ok waaw Ahlu ngoog de ak café gi waaw macha allah salaamaaleykum man la Atem Dione maa leen di ziar di leen di leen baal ak di leen baal wax ah leen wax ne lii moom rafet na lool baax rek daal lii suñu xol sedd na lool lii moom yàlla na jëm kanam daal amiin loolu suñu tubaab moom am na tànk kanam la am mais amul tànk bi nag. dëgg la. maanaam bu ñu bëgg ci lu baax rek. Ah. yàlla defal ñu ko. defal ñu lépp lu kawe suñu jot. Ah. mooy ñu wér gu yaram ak bu fan. lépp lu waay sàkk lu baax yàlla defal ko. amiin amiin. waaw ah. lii daal moom wax dëgg yàlla sama xol sedd na lool lool lool lool lool. sama xol sedd na lool. dëgg la yàlla mi am xëy na yàlla na yàlla. waaw sama xol sedd na ci lool. waa daara bi loo leen di ñaanal. ah maa ngi leen di ñaanal ci kaw ci kanam. lépp lu ñu bëgg ci yoon Sëriñ Tuubaa yàlla defal defal leen lépp lu ñu bëgg ci lu baax lépp lu ñu bëgg ci saa yi Sëriñ Tuubaa rek yàlla defal lu kawe seen yoon waaw fépp fu ñu bëgg a yegg ci ci yoon Sëriñ bi rek yàlla defal leen yàlla mën na ko sant na ko yàlla yàlla leen ko yàlla defal jërëjëf sant naa leen gërëm naa leen ki nga xam ne mooy Mouride la te ya loo koy doolee ñax jëmale ci waa daayira bi. ah li ma koy ñaax daal moom mooy moom yàlla defal ko kàttan bu di dugg ci yoon bi sax di di sama xanaa nga ñëw ci Daaru Salaam bariwul muy sama Daaru Salaam waree waaw Daaru Salaam nga ñuy def yàlla na ko yàlla defal am yàlla sant naa ko gërëm naa ko lool waa dëkk bi lii la rek moom maanaam moom yoon si ji moom képp ku ci nekk rek ñaanal yàlla may ñu wér waaw waaw waaw waaw ba ñu kàttan ba ñu di mën di jox muy santaane di bàyyi ay loolu daal moom laa jot yan kàddu nga jëmee ci waajur yi. waajur yi yàlla bàyyi leen fi may leen wér gu yaram. bàyyi leen fi suñu kanam. yàggal leen fi lool lool man la ndongali Moustapha Faye. su ma doon bi sama wóor la rek. démb yàlla dogalee. daan daje kër Sëñ Touba ñu dajale ko ci tànk di fa euh, jàng ay kuréel boobu yàgg na yàlla doxal ko ba tey bu nekk mbir moo xam ne Sëñ Touba moo ci teg loxoom ba mu agsi bi loolu ñu ngi koy sant yàlla di ñaan yàlla ñu jëm kanam yaa sëñ bi doon tamit gis la boo xam ne ñoo ñëw teewal ndax euh, da ciy ñaanal waajur léegi soppe yëpp daal di daje nuyoo waale loolu ne ñun boole nañ xol bi te ci sant yàlla yàlla yàlla doolu jàmm waaw bis bi daal ñu ngi ci ñaan ci barke alxuraan ak xasida yi at mu jot muy gën yokk ba ñëpp gis seen bopp waaw moo tax ñuy liggéey lépp luñ ko liggéeyal mu gis na ko mu fay fay ñu ko fëlal fëlal ñu ko daal ñu koy fay xol dama sedd nag. Mhm. na trop. lu ma yàgg ma benn. Mhm. waaw lu ma yàgg ma benn. sëñ Mouride nag day faral di wax ne mu toog day góor ak di leeral askan bi mhm. di wax ne suñu subaa fay kat. wala ndongo la mu subaa fay moo tàmbale woon yëf wante ma ne ko damaa baax rek. ndax bu ma tàmbalee. bu accès bi fu mu yàgg bi accès. woon rek. ah amoon yaakaar daal. dem bàyyi ko yëf yi. gis nga ko indi si. fu kawe njort la mu ko indi man foogu ma ko moom. dëgg la wax dëgg yàlla liggéey na ci liggéey bu rëy. moom moo baax di gërëm ak sant sant ak di ma li ni maa tàmbaloon yëf yi moom daa baax rek waaye yàlla xam na ne te ñëpp xam nañ bu yëf ak say fii ginnaaw yàlla ak yonent bi Sëriñ moom moo ko dox tool bu ak si ba fii loolu ñu ngi ko ciy gërëm dëgg ah asalaamaaleykum wa rahmatulah yal na yàlla def jàmm